dellu sa question dafa dul nek ci sama loxo pour que may jël suuf soosu di len ko jox état mo meuna décider te ñi ci yoon bobu ministre Karim Fofana sol na dàllam dem ba Ndengleer dem ba Jilax dem ci tolu Sedima woote na sax réunion kërëm bo xamné invité añ chef de village Dengler ak ñoo ñep ñu ñew def seen délégation mu invité wa Sedima ñoom itam ñu dem ñu añandoo fa waxtaan bay ree bay tàppante ñu mu am idée wu solution boo xam ne waxtaan na ci ak man te ñi ngi ciy avancé waaye ñi may wax tali jógaat commencé wax ak def lu ko yàq ñun solution rek lañ bëgg guerre mondiale sax dañoo mujj toog ci table ñu waxtaan lu ne am na fi comme problème dañoo toog ci table ñu waxtaan mais nag bu fekkee problème dafa am surtout que nag dëgg-dëgg nag waaye wax dëgg lii du problème lii du problème ñoom ñoo def problème bu rëy bu wër bi mais wax dëgg yàlla mënoon naa bañ a fii loolu tontu ci question bu bi des délimitation délimitation entre Ndengler wala euh, commune euh, nu sinja commune Njagañaaw man xaw ko Je xam parce que état dafa dem def liggéey bi mu war a def administration def liggéey bi mu war a def ba jël décret immatriculé terrain bi au nom de l'État du Sénégal kon boobu kenn amatul sañ-sañ sax di ci wax état loué ko ba noppi bu fekkee nag dañu gëmul yoon wala it la leen préfet waxoon rek préfet daf leen wax ne ku ñu tooñ ci yoon mais doo jël ay yat ak ay jaasi j'aurais pu vous montrer ici des photos da ngeen di tiit ñun de danañ fa dem

waru fa yegg ñi nga xam ne mooy village wu Jilax seen maire wax na ñëpp dégg nañ ko seen imam mu ngi ni toog seeni notable ñu ngi ni toog kon yaakaar naa ne euh, boo demee ci village mën na am euh, un groupe de jeunes wala benn jeune boo xam ne dégg nañ coow li euh, je a taxaw di wax wax ju mel noonu def naa ne amul solo parce que li am solo daal de droit lañ nekk dégg ngeen dëgg bi dégg ne fa euh, débroussaillé fay ci fay jox ko defal ko titre foncier léegi nag buur moom bu ko neexoon sax mu ay pour sunu ñun amuñu doolee pour xeex ak buur euh, ñoom itam bu leen neexee ñu def yeneen pexee yu ñu xam wala lu nu mën mais li am mooy dëgg moom moom dégg nañ ko dëgg bi mooy Sedima moom moom foofu si moo ko ko jox loolu moo am xale bu agité wu foofu nag wax leneen seeni kilifaa ngi ni toog bokkul ak la ñuy wax ca dëkk ba la ñu diggante woon ak ñoom am na ci lu ñu def defuñu lépp waaye gëm naa ne bu projet bi commencé danañ def ba def lu ëpp ñoom la ñu xalaatoon parce que projet daara moderne bi ñuy xalaat projet école de formation agricole bi ñu bëgg a def foofu ak yeneen ak yeneen yu ma bëggul tudd fii léegi mais loolu bu yàlla dimbalee ba ñu egg ci defe naa dina baax trop ci département bi mais nag encore une fois wax ji bu naree

ki ki nga xam ne moo téye woon suuf si di ajjuma ba pendant des années lu ne wax na ko pour que ñëw leen ngeen jël seen suufu maam yi diggante gàdd gaawaan mbarasaan ceytu foofu yépp ndindi boo demee tey teen ba fa suma maam gasoon ñu koy wax teen jàjj ngom ma nga fa waaye dëkk boobu gox boobu sax laay wax yépp Touba def leen aspire suuf soosu suñ suufu maam tey ay australien ñoo fay def projet di fa exploiter phosphate mais man dama ci kontaan suuf bi man mënuma ko liggéey mënuma ko utiliser am na ñuy ñëw investir di fa def tey suba mën na leen tabaxal école defal leen dispensaire jël leen ay nit ñuy liggéey loolu sant yàlla la kon moo tax affaire sama suufu maam la ak yooyu yëpp yu ñu war a xoolaat la jërëjëf